dëcc fa njoogu laban la laban dëcc fa njoogu moo jur damel amadu góore sobel damel amadu góore sobel jur damel ma samba tàkko damel ma samba tàkko tubaari kala macha allah jur damel sama yaay fal tubaari kala macha allah dama ne tey lu baax bu doon doy doy na tey suñu feet bi ngeen di dégg feet bi ngeen di gis yii mi ngi nii ñu ngi leen di woo de ñëpp ngeen ñëw reer tubaari kala ndax nag yaay fal day yaay falum ñëpp di yaay falum Sénégal ñëpp ko bokk tey lii buñ ko mënoon a yóbbu stade dañ koy yóbbu stade nawle yeeg xarit yeeg ñëpp fekk ñu fa waaye nag tubaarikàlla macha allah dañ koy yemale nii rek ndax nag mën nañ ne dañoo dañuy dañuy puukkarewu te yaay fa lu mu def rek mu ànd ak coow day bañ ku naan day puukkare rek day fo moo tax ñun xaritam ñi nga xamante ne nii bëgg nañu ko yéene nañu ko lii te tubaarikàlla macha allah bis bu mu am bokk nañ kook moom mënuñu kaay leen ma invité reer du wane wu de du tiitaru reer la ñu invité ñu ñëw di ko ndokkeel ci prime bi dama leen di toggal reer ngeen ñëw def reer sañse bii ngeen gis nag mu leen jaaxal ndax moom yëppam la foo fekk day sañse di def lu baax toujours souriante toujours bien habillé tubaarikàlla macha allah mbay jaan jamba ak tabara jaan jamba maa farma maam demba daal yi may sa joor mi rabal dëkku joojo njaay bi na mbaaru gaa foofu tura si njoxo baay dëgër sàmba buuru gaan maa si ñeeg maa joojo kulukumaan boo xëyee gën boo gëntoo gën boo yeewoo gën yàlla sa jàmm yàgg tubaari kàlla macha allah yàlla boole la ak ñu baax ñu la bëgg tubaari kàlla léemu ñaay ngi nii makum yaayam Sadio yaali kuma Fall Ndiaye kaw la mi ci gàddaay tubaari kàlla macha allah waaye kan borom site internet bu ah, mag baa ngi nii xaatoo ngi nii tubaari kàlla borom internet bu mag bi baax loolu gën riis man liggéeyam kaay ci dëkk bi yëpp moo koy teel a traité mooy jëm kaay faatoo ngi ah, nii tubaari kàlla macha allah ku toog nii awa mu sëriñ Saliou Eva ngi nii mu sëriñ Saliou borom boutique bi mbokkum yaayam yaay Fall yow lu xew ci kër gi yaa ci kër gi yow lu yaay faal xew la yaa ngi fi buy ubbi mu dib café lu muy def yaa ngi sañse lu rafet ñëw toog Touba rek àlla rek nga mën a mel Serigne Saliou rek nga doyloo borom jàppandal borom jurul borom dookaan borom Touba tey ba borom xalimul kawe yi Serigne Saliou mi nga xamante ni moo ne du ma jaawale jëf kenn moromam te jëf ju ne maa xam fee Serigne Saliou mi na yaakaar soxna Fatou Diakha la yaayam tudd format yi la boose masatama ca war sama càmmañal li ngeen yi Touba rek àlla kenn Serigne eh dama ne nañ ko waxtaanee rek te ñu jël teraanga ji tubaari kàll ngeen toog ñu déggu si dafa waxtaanee ko tey kaf rek ba suuti naan ba man di di waxante lu baax tubaari kàll waaye yaay Fall mi toog ñu lekk yegg si ak jàmm yàgg kilifa ji nga andal fal ñu leen wax ngeen yegg si ak jàmm yaay Fall kontaan na ci yéen kontaan seen teewaay bi ndax allah nit am bis def déplacement ñu kooku am ko ko ko kenn mënul am fayam ndax nag ku la safoo di faale ko tubaarikàlla min naa tara ngi ceew ku la safoo di faale ko ndax yëg-yëg dafa am solo ku la yëg ko ku la jàpp jàpp ko ndax temps amul le temps coûte extrêmement cher ku dagg ay minute am ngir sa jëmm su ñëwee delloo ko ci lu minute yi ba mat sëkk delloo fay heure ba mat sëkk moo taxit yaa fay nen dañ leen di dalal dañ leen dalal tubaarikàlla macha allah nga def sa jeesneer bu rafet tubaarikàlla ku xam ne jeesneer yàgg na mbasin riis yàgg na ak yow dara dabu ndax lépp da ngaa jublu fekk ko fi tubaab yi ma ma xam loolu moo tax man ko dara dabu Cheikh Ibrahima sa maam dara dabu la tubaab yi kàlla réew mii fi ñu ne baabul muridina maam Cheikh Ibrahima Fall moo yor bunt yi moo yor xew moo yor lépp bu dul woon moom Bamba réer yi ñibbi tubaab yi kàlla allah maam Cheikh Ibrahima Fall sama ah. tubaab est-ce que xam nga ne nee naa la yeneen bu sa wàcc maam Cheikh Ibrahima Fall gunge na la. ñi mu ci réew mi ak bëri waaye bi sëñ Bamba ñëwee la ànd ak Bamba jox moom ñi la gungee ba nga ma saa nekk si boo ñibbisee bu ko neexee garab lay doon. kenn du maam Cheikh Ibrahima Fall ñu baax ci ci ci réew mi yëpp moom Amadou Fall Cheikh Ibrahima nga dëgg bàyyi laa la faal maa faal ma yaa si ndaal mi ci mbul ma tuddoo mbul yaroo mbul màggee mbul tubaarikàlla macha allah kenn seeri ba sër seeri bi dañu wax nga yegg si ak jàmm tey yaay kilifa bis mi yaa jot yaa yaa yaay couleur détail bi ci sa barke maam rek la ñu fiy nekkee tubaarikàlla macha allah ak sa ndigal dara du fi déborder lépp ay baax tubaarikàlla yaay ku ma fal yaay nga ci gàddaay bi waaye ci bokkum yaay yaay faal maa la xam ne si kër gi nag jël naa bu yàgg nga bëgg yaay faal <laughs> سيدي كورة دا في برنامج ورد يا سامي ورد يا سامي ورد يا سامي يا أنا يا فهد خلاص كمان اللي يبغى في أمور ما يبغى إلي أمور ما يبغى جنب تاعه ما يبغى يا فهد يا فهد ورد يا فهد بيجون ما كربي ورد تعالوا ورد يا فهد بيجون ما كربي دم يا سامي إيه، يا حتى ما خد بينا كباري كباري يا حتى ركيم عندنا لو خيو كريعي فهد أي أي لو خيو كريعي فهد ده ما لقيت boo ñëwee da ngay togg di defar ba mu baax di organiser tubaari kàlla macha allah sama jigéen bi maa ngi koy nuyu. Moussa Bali nam naa la. si laa bokk mi am Amina jërëjëf Fall. kii sama jigéen lañoo nekk talibam jaaram. rakku Amina la magam Amina ma koy solo ba mag ba ca si kàmbaaw tubaari kàlla mbokk mi am Bamba. am jom lool nangoo liggéey baax seen nday baax loolu gën wis tubaarikàlla yéen nii rek ngeen demee tubaarikàlla vraiment yéen yaay jàmbaar ngeen sama amina liggéey lay def moo soxla bu ma gëj si kàpp mbaaw di suñu jigéen di suñu xarit di suñu lépp Amina Salon kenn du moom borom si Kambaaw tubaarikàlla yàlla maa ngi lay nuyu di jël nuyoo di ko jaarale ci Amina Salon yàlla na sa jàmm yàgg barke Rasulaay waaye ñenn. góor eh, yaay fan ñenn. man loolu laa ko téye gàmmu gi dafa am fu mu nekk ma woo ko ne ma ñëwal nga fekk ma kër bàcc maa sàmba ah. gàmmu gi man la nekkal ñetti fan ñu nekk ñoo nekkandoo ca gàmmu ga laaj waaye bi muy ñibbi rëccu wu ko xam moom dëgg géwél bu tooy nag loolu la ko eh, eh, eh, ah. xarit la ñenn yàlla jàmm ak yàgg nit ku baax macha allah ay ca dañu leen ngeen defar nañu déglu nañu déglu nañu déglu tubaari kàlla ah, ñu jox soxna si. ñu leen di saar bu baax di bu baax a baax di saar nag suñu sang bu tedd bi ñu àndal di sëñ Cheikh Na Fall mhm. moom sëñ Cheikh Khadim Fall sëñ Cheikh Khadim Fall mhm. borom première mai ki eh. nga xamante ne mooy def tedd bi chaque at premier mai di ko defee ca stade ba di bind Cheikh Ibra mooy bàyyam ndax moom mi mooy taaw di sama xarit di sama sant hmm. lu yëngu nag la ko yëngale ko ëpp doole ñu ngi tuub nag faa yaram toogaayu kaw gi sax nag wala hmm. ñu sax toog ci kaw ngay toog ci kaw waaye ndigal jëf bi hmm. ndax ñun amuñu kenn amuñu lenn it lu Cheikh Ibrahima Fall. wallaahi te Yaay Fall bu defee lii. te daraay Cheikh Ibrahima ñëwu fi. kon des na. des na de Yaay Fall kon dëgg la. wallaahi Yaay Fall gi ngay wo gi ngay woote. ñëpp naan la Yaay Fall Yaay Fall lépp loo mën a woote. yow boo tourné war ngaa gis Yaay Fall yeeg Baye Fall yi gis deretu Cheikh Ibra mu nekk ci sa wet. ndax dëgg la. bul ragal bul tiit. ñoo ngi ci sa kanam ñoo ngi ci sa ginnaaw. Mm. boo ñu gisee ñu ngi ñu ngi ak yow boo ñu gisul ñu ngi ak yow. Mm. Mm. lii nag du chance mérite la. ndax yoon yi nga nekk. ragal du fi jariñ. nekk ci li nga nekk am fit am fula am fayda nekk ci sa liggéey. Mm-hmm. fii ku fi ña ku maanaam ku fi sonn bu nekk rek. Mm-hmm. boo xolaatee démbam kon tartar ya mu jaar metti na. waaye yàlla xamul jigéen xamul góor góor yàlla la. Mhmm. nekkal ci li mhmm. li yombul de mhmm. sëñ bi la la yow mi xam nga si dara kon bu def déplacement dérangement malgré coono beeg yépp mu ñëw ba fii kon ça veut dire que nag am nga cër ci Cheikh suñu kóllëre ak yow ñu koy ñu koy fédéré waat te di ko séddale ñi fi toog ñoom jàpp nañ la ndax mm. bëgg yëg da koy fay mm. ñoo bokk bëgg bëgg man ak yow mm. te lii nag may wax da ngeen ko bàyyi xel de ku yebbu nañoo nag balaa raag bi seen waaw ñëwul nga ñëw balaa raa bi di seere ndax ñu ci ba dañuy bàyyi ba cooli bari ñu soog ne yaay far xam naa ko la sama nit la kon na yi ñëw balaa raa bi di seere daal amal jàmm amal taw fe ba yaram nag ñuy tudd baax a baax yow fal dangaa gore mm-hmm. cheikh cheikh ray sa maam rek doy na way da nga yàgg da mm-hmm. nga wér mm-hmm. ku ko jàpp-jàpp ku baax ku gore am oyof te nag oyof a ngi nii toog bu ko neexoon du ne du fi ñëw te ba ma koy wax dama ne ko ah oto bu bees bi nga jënd defaat xaaral ma ñëw savouré ko ñam ko tuuti sax nag mm-hmm. ànd ceeg moom nii kon bu fekkoon ne nit ku baax bu fekkoon keneen la kon du ko def léegi yëpp ak ak ak wooyefam la mm-hmm. kon far yàlla na nga yàgg dëgg yaay faat sa chef naa loo ko gën a jàpp doyul maa la koy wax ci say kanam ndawal waaw fi muy dem amul jot da ko tëj bu baax a baax dëgg la faa man fu ne laay dugg ci yaay yi rafet na allah dañuy ñaan rek bi dañu jël lepp joxat ko yalla suñu borom mm-hmm. yalla suñu borom bu téyé and and ba day continuer day dem day wéy mm-hmm. té sen and bi da ngay na and képp té yalla tax and mm-hmm. ngir señ Bamba tax and ngir mam Cheikh Ibrahima Fall tax ndax nak raf ñay néna montre mont bi baaxee bokk heure ku bax ku bax ngay xam nit ki ni nga mel rek day fecc say entourage té dang ko wax léegi tubaari kàlla suy tiitaroo mam Cheikh Ibrahima Fall di woote yaay di woo di woote yaay fay mm-hmm. di ci def dooleem di ci def ñàkkam di def cant yi di def lépp mu am gan gii di trophée bii mu jële ko mar ñëw nga damay def lu ndaw ngir samay am di jàmm ñu ma yàlla booleel sama kër mm-hmm. surtout maam Cheikh Ibrahima Fall ñoo fi dañuy sant yàlla bu baax a baax mm-hmm. ndax loolu taw feex la da nga léegi Touba la jógee kon xam na ne yoon bi xat na ndox bi bëri na te amul jot mais bu defee lii nii yëpp day woon ne moom ñun la fi nekkal ñun ñoo ko fi bàyyi. dëgg la dëgg la. ñoom. ñun hmm. lañ fi nekkal de. Hmm, dëgg la. ñoom li ñu liggéeyal Seexul Xadim yëpp. Hmm. ak li ñu liggéey ci yoon bi yëpp. dañoo xam importance bi yàlla suñu borom jox doomu aadama. dëgg la yàlla suñu borom dafa fonk doomu aadama moo tax ñoom du ñu xeeb kenn. déedéet noo ñëwee ci ñoom ñu téye la. dëgg la ñun wayaankat yi bu ñu leen bëggee wayaan dañ lay dañ ca wayaan wala ñu lay jàppee téye la. bu keneen ñëwee ci leneen ci loolu lañ lay téye ndax ñun duñu dégg jabar mm-hmm. kenn mam Cheikh Ibrahima Fall de dëgg la Fall am Cheikh Fall barki Serigne Touba Mbacke kenn du mom bu ñu amé seen bis man la wo kérok ma and ak mom luy ciép ak luy diwlin ak luy ndox ak luy boisson la yépp ci auto and ak man ñu ne yóbbul ko jàngkatam yoy nga xamantene ni sak at bu jot fi rek lay ñëw di barkelu di jang ci jang yi kon kuy defal lool ay jang jàngkatam du bàyyi ñu ko yàlla booleel ñi muy jaxasool du diis ak ñoom biir ak biti kon dañ koy ñaanal yàlla yàlla yàlla guddal faam tànk yi ngeen fi dox si tamit suñu borom mi am fay yàlla leen yàlla fay su ko defee rek bu amul ku yëkkatiwaat kaddu ñu jox sëriñ bi jottalil ko ay kadam mu ñaanal ñu lekk ba suuf ñu lekk nii tubaari kàll heure bu ñu waree dem àjjana mu riisee ji fa yàlla fi ñëpp yàgg ñun ñëpp yàlla ñu am jàmm fekkee lii fekkee fekke fe di fekkee programme yi di fekkee xéwal yi di fekkee cant yi di fekkee màggal gi ndax nag tubaarikàlla macha allah lu baax moom ñëpp ko bëgg lu baax ñëpp ko bëgg te aada bu rafetee diina da koy nangu aada bu rafetee diina da koy nangu yàlla na ñëpp am jàmm waaw su ko defee rek yaay Fall bàyyi la nga yëkkati say kaddu cant santal mbooloo mi say kaddu cant suñu paree ñu mujjee ci sëriñ bi mu ñaanal ñu. di nuyuwaat Fall Ndiaga di leen ziar yéen ñëpp. yéen ñi taw fii nii di wax ni kontaan naa am naa mbégte boo gisee man ma def ko nii na nga xam ne ñu ma jégale sama famille la ñu ko toog waxtaane ko nii parce que dañoo nekk si nawet. Mm-hmm. te tey bu ma fi baasee. Mm-hmm. nit ñi. duñ ma bañal ñëw. ndax lu ma xewle même buñ amul sax jot dañuy seete def lu tout pour ñëwal ma. te looloo tax tey ma ne naa ko def lu yem nii rek. def ko yëfu mbir def yëfu bàyyi faa ñu reer rek waxtaanee ko ni di wax ne kontaan naa si ñëpp bëgg naa seen parce que nga am sa bés li ñuy wax mën nga luy ay bagage mais mënoo luy nit ñi mais man jiwuma kenn sax lu tax nga war maa dagg sa itte yëpp ñëw di ñëwal yéen baax rek yëg ma tamit bëgg ma parce que man su ma amee ak doole ba damay samp yenn programme ñii la parce que lu metti metti ak lu xew mu mu bari ñëpp dama leen di gisaat kon sama famille lañ jooy ma fi yaay jooy ma fi papa jooy ma fi dara parce que su ma nit ñi gis kon sama famille ñii laa bokkal la ñii laa bokkal baay parce que li tax ma bokkal day ak baay que ah ñun ñi ñëpp ku ci nekk mun nga fanaan sama kër. mën nañoo lekk mën nañoo naan mën nañoo fanaana fanaanandoo sama néeg bi ma tëdd. kon yaakaar naa ñi du kenn du ci jaam bu si ma. Mm-hmm. ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. Mm-hmm. di wax ni kontaan naa bég naa si ñëpp macha allah sama xol sedd na ma fet mm-hmm. gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp parce que su ma limee damay jiw sànq ba tey ku ci nekk dagg nga si itte ñoo jàppale ma si waañ bi togg togg gi def lépp ku ci nekk def nga sa doole sonn ci bay bëgg a kontaan naa ci ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal sama yaay surtout moom ndax lépp moom la. Mhm. fan bu gudd ak wér moom a sama papa. di ñaan yàlla yàlla def ko yeneen événement yu gën a nga day. dañu war a trophée bi yaay Fall trophée bi. waaw trophée bi Maroc lañ ma ko joxe. Mhm. xam nga ne li ma wax chaque jour. Mhm. Euh, li naan yaa gën a féete xale yow la réew mi bëgg. li ma chaque jour mhm. maa gën a féete mais saa yi pour ak man maa ko téye <laughs> waaw. waaw. <laughs> en tout cas trophée bi nekk na ma bett parce que man bi may dem Maroc sama dañ ma woo. Mhm. te lii ñun ci boole ñëpp ku ci nekk dégg nga dëkk dëkk ay kilifa rek lañ ci boole. Mhm. te ay dëkk dëkk dëkk yi nga Sénégal yëpp ku ci jour nga ci programme bi. man tam ñu tànn ma ma dem jël trophée bi di ci sant yàlla baax comme ni ma koy wax chaque jour mhm. dama naan bépp seetkat rek ñàkk ci trophée parce que ñun ñoo bokk métier bi yàlla moo dogal nag loo gis su nekk ñu sepp ci kenn mhm. mu jiitu ci mhm. waxuma maa jiitu mais trophée bi yàlla man la dogal man teg ko sax yaa jiitu sax de <laughs> sotti yàlla alhamdulilah di ñaan yàlla ñu feetee ko ay ati ay ati par chef ba de waxtu ba boobu par yàlla bismillah ko tegee di wax ba suba du wàcc waaye boo tegee jëf bu néew néew néew rek wàcc xam naa moo tax Cheikh Ibra moom tànn yoonu jëf te yoonu jëf ma jëriñ damay wax waxtu bu ne ne yoonu murit li ñu wutale ñëpp nañ ko xam te jàpp te loolu moo di ak taalibe Cheikh Ibra bu indi di julli teg màgg woor kon islaam ñoo diine ji ñëpp ko bokk waaye nag ci suñ tubaa am di kenn amu ko mooy ak taalibe bi mooy chef ay nit wax ci sa bopp baa nga wax ci sa maam baa ngi wax ci sa juddu bokkul ci ngi de waaye nag nit lu ñu la xam-xam yaa gën a xam sa bopp woote ñu teew ci Touba lañ jugee ngir bisam bi waaye yaakaar naa bu ko wootee woon fii ba Kédougou jàppe nañu noo xamante ni war ñu benn bi ko ñaareel suñ alal bi li tax mu doon suñ alal mooy bu ne yaay faal sa xel dem ci séyé bi te ñun bu ñu jàpp na bàyyi nañ Cheikh Fall ñi nekk suñ ginnaaw dootu ñu ngàbbal sa bala ndax gënuñu kenn waajur gënuñu kenn ëpp jub ada ma def ci war ma jooy yàlla def ñoom ka tax ñu war maa yi muy Cheikh Ibrahima ku ñu tudd du Cheikh Ibrahima sun alal te nit nag da ngay sàmm sa alal sàmm sa ngor kon moom mii daa bëgg sun alal ni ko soxna bis bu ko dara lu ci lu mu sagu sagu sagu dana des ndax waajur moo gën a fort ci doomu mhm. waaye nit bu faatoo bu juddoo mhm. bala ñu ko tudd kilifa mhm. waaye bu faatoo bala ñu ko denc sëriñam ñëw kon kilifa yàllaa bu tànn mënta ñàkk ci doomu aadama lu ngëneel nag waaye yàlla jiital yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente yëpp ay yonente waaye yàlla ko jiital mu gën ci mboolem yonente yi kon loolu taw dee suñu borom yaay faal it kon lii nga xam ne yàlla dafa doon mu doon sàkku yàlla defal ko ci ndam ak Cheikh Ibrahima mm-hmm. loolu moom suñu ndam la ñun ñëpp mm-hmm. ndax bokk ci Cheikh Ibrahima mm-hmm. booy sàmm booy wuti di am te mag mu baax daa wute woon waxoon ne nguur wut mooy am kon li bokk ñëpp ci Sénégal yàlla seppi ko ci tànn ko ci defal ko ci cër boobu mu gestu di ci teew ci dong Cheikh loolu yaakaar naa ak jant la. ñu hmm. koy ñaanal nag. yàlla na àggal ci jàmm. yàlla na ko jig yàlla na doon yokk seen. benn def Cheikh Khadim. di ko ñaanal yow yi aw nag. Hmm. bu mu dëpp bu mu gees mu mën a ginnaaw. waaw ndax moom ci lu baax rek lañ ko xam. Hmm. yoonu siraatal mustaqim. wala fi nag dañuy wax ne ku seen ka doxe mu ñaaw. xalaat na nga koo jiitu mm-hmm. waaw kon nag bul bàyyi xel kenn lu mm-hmm. dëngalal sëriñ bi rek mm-hmm. fas yéene koo liggéeyal te yoon yi nga nekk ni ak njub ak taalibe nga sax ci ba faaw daana la ko suñ jubaa defal yàlla la defal tawfeex defal la yokkute defal lu wér defal ko mboole ñu fi teew maa ngi jégalu ci kàddu bi xaw naa guddal fees eh, eh, rek eh, lu ci dëngit yéene ji moom moom yéene jee fees ci xol moom ku tudd Cheikh Ibra tudd ko. dëgg la waaw moom. Cheikh Ibra ji mi woote. Hmm. da koo gëm. mu dugg ci moom. Hmm. dëgg la ñëw. lépp lu ñu wootee Cheikh Ibra lépp lu ñu wootee Cheikh Ibra léegi laa koy ci yoon. kii hmm. ñëw ma ne ko war a sant yàlla bu baax jigéen ñi. waaye lépp lu ñu wootee Cheikh Ibra daañu la fi gis. te mboolem bunt kër Cheikh Ibra ñëpp xàmme nañu. te nag ak taalibe noonu la war a mel. te loolu nag pas-pas a koy maye. Mhm. Mhm. kon nag moom ñu ngi koy sant bu baax a baax tey suñu xamanteeg soxna yaay Fatou Ndiaye moom la jaaree. ñu mhm. ko baax te moom noonu la ma jàppee. suñu xamee yàgg na. ñu mel ko sama waajur. ba lépp lu may nekk man it. di ci liggéey Cheikh Ibrahima su ma gëstoo gis ko ci. ci ñàkkam. ci dooleel ci yéene. kenn mënu ko. jigéen la waaye jigéen la du mën góor. dëgg yàlla moom it ñu ngi koy ñaanal. yàlla na ko ci rafet kàttan. liggéey mi liggéeyal Cheikh Ibrahima Cheikh Ibrahima nangul ko ñaanal soxna yi nga xam ne tamit mm-hmm. ay xarit yi yaay xaal ni ngeen bàyyi xaal yëpp nag mm-hmm. ñu ngi mm-hmm. ñaanal saa borom dafa leen doog ñaanal sax si ànd ab ànd bii rek lay jëriñ soo wootee gis ñi nga war a gis soo jaaxlee gis ñi nga war a gis day dalal xel see rafaal ne woon na jaajëf gàtt na lool waaye ku jëfut dara doo ko kon nag boo wootee ñii teew jëf da nga wan ci ñoom rek teew ndax temps amul. te bëriwul. kon nag yàlla na saa borom saxal seen ànd. barke ci Sëñ Tuubaa barke ci Cheikh Ibrahima.